يسور رسول الله ياتي بمولدي يدوم لنا بشر يفي خير مولدي يسور رسول الله هاتي بمولدي يدوم لنا بشرا يفي خير موردي وهاني إلهي كل لدوني بجاه من له دارات ناح ومفسد محمد المختار لم يأت مثله وليس يجي مثل له نعم سيد مرام من المولى لساني بلا سم بجاه سفيه الأرض لمنا محمد أسرت براب الله سيبدا لودي وما ساله البيبي هدا ساته يودي لخير المرايا هلامي بشارة ولهذا تاسيس به نوش توتد دهاني إلى إحياء حساسر كونه لخير الورى صرفا هوى كل سوداد هدياتنا تغسو ندى الله شرمدا هانا مهده هواه الغوث السادي أوانا انتقى للها هو الها قديدنا بإهدام رشد أدا كل مصد إلى خيرنا تنو مفاسد كلها وتنو لنا خيرا من خير مجد سببت لخير الله وسعبا لهير داخ مولاي وسدي إلى الله بالمغدى روادات ما به حويت سلالا في غير موردي إلى الله بالمغدى روادات ما به رويت سلالا سافيا حير موردي سمي لك ما مينان سرين بام بلاديو مفروت بسم الله هبارك برمتو sumay lekk mbaa may naan sëriñ Bamba laa tey woo mu farwutu bismillah xibaar ke Tuuba bismillah noo ngay ñaan di dagaan tey wayaan tey laat ay weral waay sëriñ Mamour ci barke Tuuba bismillah noo ngi ñaan di dagaan tey wayaan tey laaj hay weel waay sëñ Mamour ci barke borom Tuuba sëriñ Bamba la koy ñaan di dagaan tey wayaan tey laaj cey weral waay sëriñ Mamour ci barke borom Tuuba sëriñ Fallu la koy ñaan di dagaan tey wayaan tey laaj yow wéral waay sëriñ Mamour ci barke borom Tuuba man borom xayra laa koy ñaan di dagaan tey wayaan tey laaj cey wéral waay sëriñ Mamour ci barke borom Tuuba bismillahi maan waay man farlooti naa jëm ca sang Bamba ke a waral li bismil ilaahi maa ñëwaat man farlooti naa jëm ca sang Bamba ke a waral li ab jam sañ naa woyub sangam rawatina muy sa wasila mbàkke yaa waral lii sëriñ ma moo santati naa ku ne sañ sant kala defar sang ba mbàkke sama melo tax na sant naa yaa defar sang ma Mbàkke yaa waral lii te Seex Mamoor Mbàkke Falilu Mbàkke yaa waral lii bàyyi soxna Jaara Seexi Falilu Mbàkke yaa waral lii yow jàmbaari Cheikh Modou Fallilou Mbacké a waral lii ba xerew ñu len ma wax lu tu ci ay melom xamna ne sax duma matal sang ba Mbacké a waral lii xoolal sëriñ Mamoor loo yaakaare saa yiram baatinam mu lay defar sifar ci sa mbir waral lii sëriñ ma moor sa tey doonu maamam fallu yaa ni roog moom bàyyi soxna fallilu man de yaa ni roog moom yow jàmbaari seex moo doog raw moom kon ki moo niroog moom yaa ma defar defar samay mbir Mbàkke yaa niroog moom xoola sëriñ ma moor Mbàkke jëmam jayem na ma man yër naa ko muy niroog islaam Mbàkke yaa niroog moom Mbàkke yëngoom nga dalam lépp la jël jox alxuraan xasiday Cheikh Bamba yi ngeen yelam yaa niroog moom sëriñ ma moor mbaa du yonen mbaa sax nga doon yonen yow lislaam yaa di ndamam sang ba mbàkke yaa niroog moom jot leen taxaw màggal sama sang ba mbàkke yaa niroog moom e waay njukkal leen ko sama sang ba fàllu yaa di jàmbaaram Falilu man de yaa di jàmbaaram Daga niroog moom ci gëmam Mbàkke niroog moom ci am am nga addiyal sang fallu yaa di jàmbaaram ñëw leen ni mu fallu yaa di ay waay Kazu Rajab ni mu fallu yaa di sa xéewal yi nii mu yaatoo fallu yaa di jàmbaaram sëriñ ma moor ma ndax xam naa di man nangul lii sëriñ ma moor damay jigéen man samay mbir lépp saa ire te ma féete woo di barkeelu ci sa mbir mbaa di man nangul lii sëriñ ma moor damay jigéen tey samay mbir lépp saa te ma féete woo di barkeelu ci sa mbir yal nag ma nangul li acca jóg leen murite ba nu siyaar Cheikh Imam Mor waaw waa acca jóg leen murite ba nu siyaar Cheikh Imam Mor waaw waaw cey aca jóg leen murit yee nanu siyaar Cheikh Imam Moor waaw waaw ay waay jóg leen tey wax lii nanu siyaar Cheikh Imam Mor jóg leen murid yi waaw waaw Sëriñ Mamour mi ma doy loo di ko woo di ko siyaar Cheikh Imam Mor jóg leen murid yi waaw waaw Sëriñ Mamour Mbàkke baatin balay xool di ko siyaar Cheikh Imam